dale ci sa morom ci sa kaw morom mhm. maintenant nag xam nga keroog maa ngi koy wax ma ni uh-huh. nit ki laataa muy nekk journaliste wala laataa muy nekk professeur wala laataa muy nekk lenn dafa am li nga xam ni moom la gëm mooy les croyances politique uh-huh. mu les croyances religieuses mu les croyances ethniques loolu ñun moo jiite si ñun avant avant ñuy am leen loo xam dafa nekk wàllum profession uh-huh. maintenant nag tey enseignant bi bu jàppee ni moom dafa nekk si benn parti politique bi nga xam ni ki nga xam ni moom moo ko jiite dafa nekk di dund une injustice defe naa li ko war du leen lu dul dem. Euh, euh, euh, daal di koy saytu dem ànd ak moom li nga xam ni moom mooy naqar bi muy dund. comme aussi ni mu amee si biir gouvernement bi. Mm-hmm. ñoo xam ni dañuy jàpp ni à chaque fois day dem dañuy jéem euh, wax le président Macky Sall euh, lu ñaaw wala genre mel ñu koy ñu koy jël part non aussi na war a nangulee ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition aussi ñuy jéem a xool naka la ñuy jëlee part seen i leader mais aussi naka la ñuy def ba di booloo di jéem a gunge seen leader si lépp loo xam ni dañ koy def donc je pense que muy li muy li nga xam ni loolu moo waral arrestation yu bari maanaam nit ki kii dafa bokk fii donc il faut que ñu jëm ko arrêter pour juste euh, liquider ki nga xam ne moom mooy adversaire politique alors chérie si tolluwaayu réew mi ak fitna yi nga xam ne rek dëkk ñu ngi koy faral di gis mu mel ni boobu ba léegi rek ki nga xam ne mooy Alioune Tine bu Africa Jom Center euh, chaque fois mi ngi def li nga xam ne mooy di wax nit ñi di artu ndax comme nuñ ko taamoo di waxee chaque jour dinañ dem ba euh, Sénégal bu tollee ci euh, ay jamono yoo xam ne rek fitna lañ fi faral di gis dañuy faral di gis kilifa yi ak ñi nga xam ne ñoo faree ci société civile bi di génn ngir artu ñu gis ni que sax dem nañ ba kenn déglootul ñi nga xam ne rek su réew mi tolloo fii dañuy génn di wax.

ak li nga xam ni moom mooy responsabilité bi nga xam ni nit ki daxoo am si population nit ki daxoo am si doomu aadama yi bu fekkee moom dafa war a taxawee te taxaweewu ko je pense que nit ñi dañ dem à un moment donné dañuy pet li nga xam ne moom moo nekkoon confiance ak crédibilité bi nga xam joxoon nañ ko doomu aadama boobu noonu mi ngi mel ni tey si biir kër gi diggante yaay ak doom wala diggante papa ak doom bu fekkee tey papa ji li nga xam ne moom moo ko war si doomam si responsabilité ci taxaw Euh, ci ci ci éducation defu ko doom ji à chaque fois lu muy gën di màgg day dem ba dootu jox li nga xam ne cër moom mooy papaam. loolu moo ñu liggéey comportement yi léegi dafa changé bu baax. effectivement parce que gis nga Amina ñun ak sunu kilifa diine dafa am benn pacte bu ñu lié. Mhm. pacte boobu mooy teg ñu si yoon bu baax. pacte boobu mooy jéem ñoo wax li nga xam ni moom mooy li gën si ñun pacte boobu mooy ñun bu nekk ay tolof tolof ñu jéem génn jéem a jéem a artu parce que xam nga keroog maa ngi naan la ñun dañoo gëm Touba ñun dañoo gëm Tiwaawan ñun dañoo gëm Ndiassane gëm fi nga xam ne moom mooy Yoff ak Cambérène maintenant nag n'empêche gëm-gëm gi ñu am si kilifa diine yi am na fu ñuy toll mbir mi nekkatul un débat religieux mais dafay nekk un débat politique maintenant nag un débat politique se règle sur le terrain politique parce que gis nga Amina politique boobu noonu moom mooy indi les crises sociales maintenant nag boobu noonu nag dafa am li nga xam ni ñoom ñooy constituer les barrières mhm. yi nga xam ni moom mooy empêcher nit ñi di di bañ di affronté wu ñoom ñoo war a def li nga xam ni moom mooy tax ñii di force de l'ordre yi ak population bi du ñu laale maintenant nag ñooñu bu fekkee seen rôle defuñu ko je pense que réew mi fii rek la mën a toll Afrika Jom di Alioune Tine moom aussi dafa nekk sur le même pied d'égalité euh, euh, avec li nga xam ne moom mooy les religieux amina tay ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom euh, ñooy la société civile la ñu gën a déglu ko kilifa diine yi c'est parce que ñoom li ñu gën a gis sur le terrain mhm. parce que ñoom la ñuy gën di dégg ñoom la ñuy gis si rajo yi di di leen gis si télé yi ñuy wax même si bu fekkee tey kilifa diine bi amaana jotam ak fi nga xam ni fan la féete si diine yi

taxawaay effectivement c'est parce que mag ñooñu seen taxaway taxaway bi ñu amoon ci réew mi jom bu ñu taxaw ak président ni xoy yow yow mii kat li nga def ni dëggoo ko fenn mhm. parce que gis nga Amina kuy jiite dafa dafa soxla ku koy wax dëgg parce que gis nga ñun li ñuy constaté ci ci Afrique mooy suñu kilifa tourisme euh, euh, euh, su suñu njiit yi amuñu ñu ñu ñu leen wax dëgg mhm ak ñom li def parce que nguur dafa doy nga nguur gis tout le temps ñi nga nekkal ñu wax pour man à chaque fois je fais appel au chef religieux maintenant il faut que ñu def la différence entre les religieux ak ñi nga les marabouts alors dañuy faral politique non merci en tout cas gis nga comme ni ma ko waxee mhm. il faut ñu def la différence entre le le marabout ak le chef religieux. le chef religieux man boog ni ma jappé moy ki nga xamni dafa nek ci diine gi di taxawal diine gi yor ay talibem nek ci kër mamam di def liggéey bi nga xamni ni moom la ko maamam bàyyee woon waaye liggéey boobu da cee bok ci gidde doomu adamay yi. liggéey bi loolu loolu da cee bok parce que xam nga bëgg dem maa koy wax en classe man leen il ne faut pas euh, dire que man je ne fais pas de la politique il faut se politiser il faut faire de la politique avant que la politique nous fasse. Euh, hommes religieux place politique bi. donc bien sûr bien sûr bien sûr nga politique la war ñun avez des da ngay sa mhm. koy ranger ba mu baax sa ba mu vous donc mais la politique parce que la politique c'est là de gérer la cité. Mhm. maintenant la cité comme une chambre comme euh, une commune comme un pays et comme même une région maintenant nag tey bu ñu nee kilifa diine yi def politique donc réew mi am na fa muy toll est-ce que ñun waroon taxaw dans kilifa diine yi <laughs> nan wax mais non raison pour laquelle quand je vois euh, benn kilifa diine boo xam ne def politique

waxante lu bon kenn ku nekk di di diffamer sa morom kenn ku nekk di wax sa morom lu lu ñaaw di euh, wax sa morom bi nga xam ne je pense que xaw naa passé muy li nga xam je pense que loolu c'est pas de la politique. loolu loolu nekkul euh, fulla ak fayda bu njëkk politique hmm. bi ni mu doon doxee ak léegi dafa dafa ute loolu. politique bu njëkk idée la. Hmm. c'est des idées et des faits. boo jëlee jamono jamonoy Cheikh Anta Diop mais Cheikh Anta ak ki nga xam ne moom mooy Léopold Sédar Senghor malgré Léopold Sédar Senghor ni mu mette woon ni nga xam ni meloon na ko contre nga xam ne moom mooy comme euh, Cheikh Anta Diop mais mosuñoo laale. effectivement mosuñoo laale li nga xam ne moom moom moo nekkoon seen i xeex mooy des idées kii ni man tekki laa la wax kii ni tekki bi ni ko bindee baaxul c'est-à-dire des idées kenn ku nek ni li moy doxal rew mi ki ni la carrément réew mi ni ko doxale du ni ni nga ko doxale maintenant nag léegi bu ñu ba nga xamni jeunesse bi liñ liñ jàpp ne mooy doxal réew muy violence saagante day nek ci réseaux sociaux di saaga nit ñi mais je pensais que Amina ak fo mun ta bok que moy opposition nga bokku Pastef nga bokku PS nga bokku APR ak fo mun ta nekk saagante day nekku li nga xam ni dañ ko rafetul mm-hmm. amul fenn

damay damay appeler nit ñi ak le gouvernement ak l'opposition ñu jéem a xool naka lan moo indi taal yooyu noonu. pourquoi les gens continuent de saccager yi xam moom mooy. les biens publics ñëpp am nañ ci responsabilité mais responsabilité. bien sûr bien sûr bien sûr Amina. réew bu amee jàmm état moo ko may jàmm. Mm-hmm. le monopole de la violence état moo ko yor kan moo yor armée.